salaamaaleykum seen ak trans jàmbaar maa ngi nuyu ñëpp sant ñëpp gërëm ñëpp di ñëpp jàmm ah di leen jégalu bu baax a baax a baax waaw dañoo jot ay nouvelle ñu ni dañoo levé garab bi jeex na loolu amul loolu ku ko wax waxul dëgg waaw dégluwaat leen information yi bu baax kenn levé wul moo de ordre fii may waxe maa ngi nii bourse de travail taxaw di xaar syndicat yi ñu ñëw man ak Cheikh Mbacke ñun ñëpp waa Kër Baye Alassane tout Sénégal gépp ngi fii ñu ngi bourse de travail toog di xaar gaay Ibulaay Kayta léegi la coupé Pape Modou Ndiaye matagul sax 30 secondes Pape Modou Ndiaye ñoom dañoo génnoon pause mais duggaat nañ ci saal bi actuellement ni ñu ngi continuer seen négociation dara tukkee gu fa képp nag ku taxaw wax ne grève bi jeex na levée numéro bi loolu ku ko wax nee na ko Samba Ndiaye nee na waxoo lewee wuñ ko tey lewee wuñ ñu ngi toog di négocier pare guñu ñi leen taxaw loo woon déglu leen leen bu soobee yàlla ñi leen taxawloo woon bu ñu paree daan defaat audio ñu leen déclenché leen départ leen lewee nañ ma jubóo nañ ci point sangam point sangam point sangam loolu na ngeen ko xam bu leen déglu waxi kenn bu leen déglu fausse information yi bu leen déglu dara ñi ngeen ñi ngeen déglu woon daal bañ taxaw loola dégluwaat leen bañ dem loo leen bu leen déglu woon bu leen déglu bu leen déglu kenn waaw loolu daal laa di waxaat ya ngeen cadre bi ngeen déglu woon ñu taxawloo leen dégluwaat leen cadre ba ñu leen dem leen loolu mooy dëgg ku wax ni la nañ ko nag waxul dëgg maa ko wax